الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تيجي jii la dibeer di juróom fan ci safar ramadan yamook juróom benneelu guddi ga ñu del si ak ci naafile yiñ ci baxu amal te ñu sopp ko lol sopp nañ ko ci julli ñaari rakka raakax bu ne nga tëra ca fatiha benn yoon nga teg ca lixlaas douze fois fukki yoon ak ñaar sëriñ bi nee na ku def loolu njariñ ja na lool waane danga mel ne ku julli junni yoon ca makkatal mukarrama di ko seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ki leen koy baaxee di seen mbokkum taalibe Serif Assane Mbacke Nasrullah يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماء